Ah, jërë ngeen jëf ah, yéen mbokki téléspectateurs yi nga xam ne yéen woy moo di Info 7 TV comme ni leen ko baaxoo defalee ndiki ñetti fan yi ñu weesu tey di quatrième jour ci ndigal li nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké jox ah, Serigne Cheikh Amdi Monde Fall muy li nga xam ne eh, mooy yaatal li jëm ci corniche bi ak fi nga xam ne moo di diwaanu marché Ocass mu mel na nag corniche bi wër nañu ko ñoo ngi tàmbale woon fii ci garage Dakar tey agsiwaat nañ fii ci garage moo di eh, yoon wi nga xam ne mooy deux voies bi jëm xayra jàpp jumaa ja kon foofu lañ nekk nii man ak sama caméraman eh, Serigne Mor Diouf kon mu mel ne Baye moom saa su nekk rek boo ñëwee da gis ni que wax dëgg yàlla liggéey bi rafet na sell na defee nañ ko kem ni xam ne noonu la ko Serigne bi bëggee kon xam naa ne ñun tamit eh, noonu rek la ñu koy daal di ànd ak yéen ànd ak Baye Fall yi topp liggéey bi incha allah lépp loo xamante nii ne jëlee nañ ko fi rek Tataguine incha allah ci kanam incha allah. laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah faal laa ilaaha illallah laa ilaaha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 jërë ngeen jëf noo ngi leen di jaarwaat bu baax yéen mbokk site internet yi nga xam ne yéen wéy duñu bàyyi xel ginnaaw ndigal li nga xam ne moo wàcce woon ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha ñëw ci Cheikh euh, Modou Amdi Mbende Fall euh, ak mbooleem Baye Fall yi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi yépp bi ñu ko door ak léegi mu mel ne tey la ñeenteel bi fan mu mel ne wër nañ ba daanaka agsiwaat nañ fi nga xam ne mën nañ ne fi lañ doore waat muy ancien garage Dakar waaye ñu ànd ak euh, sunu jëwrin jëwrin liggéey bi Cheikh Mouhamadoul Fadlou Fall Cheikh mu nga xamante ni ràññee nañ ko lool ci liggéey bi dénk sunu micro mu leeral liggéey bi fan lañ ko tàmbalee ak fan lañ toll nii ak liggéey bi nan lañ ko fa yéenee yeggalee bisimilah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyu mbooloo mépp bu baax a baax a baax di leen xamal ni liggéey bi tàmbali woon nañ ko bërki démb lañ ko tàmbali woon tey la ñeenteelu fan bi ah ñoo ngi ci nag des na àggagul. Euh, bu ñu jógee fii itam dañoo war a delluwaat ca kàmbi suuf ya corniche bi moom wër nañ ko ba dajal dagg garab yi tonni mbalit mi sëkk ko loolu moo ci des ah bu ñu fi jógee nag dinañ delluwaat ca kàmb ya suul ko door a dem marché Ocass marché Ocass ba tey ci la waaye nag dañoo bëgg bàyyi ba lii egg ñu door a dem marché Ocass ñu di leen xamal ni daal fii ci tuubaa na ko Cheikh Ibrahima leerale woon ba fi sëñ Touba di ne noonu lañu koy leerale képp koo xam ne kii dëkk nga fi foo xam ne fii dëkkoo ci yoon mbaa nga def sa place foo xam ne fii du yoon danañ ko dindi ndax sëñ bi jox nañu ndigal li te duñ ci dellu gannaaw fépp foofi foofi xam ne waaye def na fa loo xam ni moomoo ko wala ci mbedd nga ko def danañ ko dindi fii nag kër la dug dëkk kër Serigne Touba la lu fi waaye def te neexul boroom danañ ko dindi kon nag nañu góor góorgóorlu ab dëkk nag boo fa duggee te kenn jaayu la sëñ bi jaayul kenn sëñ bi day maye sëñ bi dëkk bi ku fi am kër dala koo may ku bëgg a jënd nag yaa seet fa la neex nga jënd ko waaye sëñ bi day maye ba tey jii ku bëgg sëñ bi may la benn dëkk nga gis ci Sénégal boo xam ne boo demee ñu dagal la kër amul fenn fu dul Touba gi kon nag li sëñ Touba bëgg Touba da ko war a am bu baax a baax a baax sañ baax sëñ Touba da ko war a am lu ne nag ñu ngi ko ciy dégg waaye nun daal Touba dinañ ko setal ku fi def loo wër te defal ko dindi dinañ ko toj ba mu set wicc ñu génn génne ko sànni ci àll ba. kon mu mel ni liggéey bi li wër corniche bi rek la sëriñ bi joxe woon ndigal euh, ci loolu ngeen di yem dégluwaat yeneen ndigal mu mel ne ah, marché Ocass xam ngeen bis bi ngeen fay dem wala xamagu leen ko ba tey. waaw marché Ocass moom dañoo dese ab liggéey ndax koris bi mu wur nañ ko ba dajalaat tey waaye dafa am kàmb yoo xam ni dafa nekk fii ci tuubaa te yàgg fi lool te tàmb yi fu mu nekk kàmb yi mi ngi ndaamaatu foofu la kàmb yi ne yàgg na fa nag lool dafa taawoon am ndox ba fees boobu léegi nag ñu ngi koy mang lu ma téeméeri camion fa lañ démb yend fa tey ñu ngay mang ndox ma waxtu wu ndox ma jeexee nag ñu àgg fa suul ko buñ ko suulee ba pare nag siwaat ci marché bi dindi li fi nekk lu fa baaxul rek wala mu salte fa wala nekkul ci yoon rek ci biir marché Ocass danañ ko dindi bu soobee Cheikh Fall mu mel ni li wër corniche bi ci ay station bari na lool station yi noonu ndax dañ fiy jóge wala dañ leen a jox délai boo xam ne ñoom ñooy xool ni ñu fi mën a jógee ñu jógee fi noonu itam dañ leen a jox délai ñu jële fi seeni i mbànd bu ko defee yem ci seen biir liñ moom jël jël pompe yi yóbbu ko foofa bàyyi bayaal bi mu jàll. mboolem li nga xam ne daal sëriñ bi buggut ku ko laal ñoom loolu dañ koy delloowaat ci biir jël rek li nga xam ne moom la ñu moom. liñ jël liñ moom rek la ñuy jël station bu bees bi fi nekkoon ñu di ko defar te eggul moom maasale nañ ko loolu war naa yee borom station yi xam ni fee waaj yem ñoom it fa la ñuy yem. bu délai yooyu jotee te xëy na ñoom ni ngeen ko bëggee woon di defuñ ko noonu yéen. Euh, ñu dellu siwaat jëlee leen fi. loolu mooy ñun jëlee leen loolu moom yaakaar naa ne leer na lool kon loolu ku ko dégg rek nga xam ne kon ndigal jëfee te eh, comme ni ko eh, gars yi di waxee rek bu Serigne ba joxee ndigal Cheikh Rafal moom yaakaar naa ne loolu bakkan lee laaj kon képp ku xam ne da ngay wéy ndigal rek mooy daal di tënku ci ndigal loolu laataa ñuy agsi ci sa kaw ndax buñ agsee moom daanaka wax duutul jariñ dara jëf rek la ñuy daal di jëf kon ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax kilifa gi jërëjëf ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal taalibe yi gudd fan te tey fas yéene jëfe ndigalu Serigne Touba rek daal dong lañ fi nekk jëfe ndigalu Serigne Touba lañ fi nekk nun daal ay taalibe yi Cheikh Rafal lañ lu sëñ Touba joxoñ daal wala lu bëggul ci dëkkam bii loolu lépp bu soobee yàlla dinañ ko fi jëlee lu sëñ Touba bëggul ci dëkk bi daal dinañ ko fi jële bu soobee Cheikh Rafal إله إلا الله